kii di Boy Dakar bu tudd Bakassar moom <laughs> moo ñëwaat kanam moom moo xees moom moo ñaan ndox arbitre si benn ñaari mbër ngay léewtoo sixième bi awul xaw ma kan moo ñëwul si ñoom ñaar waral bi mooy sixième combat bi Ronaldinho Boy Dakar waaye di ñëw moo ngi moo ngi moo ngi moo ngi lu bett li ñaare it mënee ngay leewtoo waaye di ñëw dib na suuf Boy Dakar dib na suuf supporter Boy Dakar yaa ngi supporter al bi bi ne ngay jaxasoo laa sa morom daan wala duma des fois nag nga sa morom daan des fois nga bëre bëre bi yëpp cat ko cat ko fay na léegi mën ngaa bëre Boy Dakar soppi na tànk bi daal di koy dugal suuf day dem wala lu muy def Boy Dakar dund ba Kassar école de lutte dund ba Kassar la nekk Ronaldinho nekk Songane Gueye ñoom dinañ ko gëyaandeel sax booy Dakar day dem booy Dakar day dem ñun ñaar wàcc ci suuf bëre Ndambala ak Njool bëre ku xees ak ku ñuul la as <laughs> bi nee nga ñaar di géew ndax mu man leer si waaw amu nee amu seen benn morom bu mu bëre combat bi yàggee nii xanaa waxu lool maa wax lool ak bu sifflé waat na pour la deuxième def na li defoon ku nekk sapp na tànkam daal di suuf suuf man xaw suuf si ngeen bu lal wax bu lal rek bëri suuf bi Boy Dakar mu bokk xees nga moom mu bett Boy Dakar sëgg bi mun la ubbee baal baal waat na waa abul xew ab yow gaa si carton jaune de ab bi ma yaakaar avertissement yi dagg yi si am jàpp na loxo bi Boy Dakar daal di koy fëx Baye Mbaye waat ko daal di suuf waat na jàpp Baye Lawé songante nañ sans amul dóor Boy ngi dóor Boy Dakar ngi dóor radio ngay ko radio suqi ko mu daw génn waaw waaw dawoo da ngaa wuti doole radio suqi na ko Boy Dakar génn dawoo da ngaa wuti doole <laughs> waaw waaw appui de lay jox avertissement ndax daw ba waaye moo gën daanu waaye moo daanu dem na ardo Boy Dakar dem na ardo naa di leen neex a gën a ñëwe nag demee ardo daal di ñëwaat Boy Dakar moo jàkkaarloog ñun daal di gémoo gémb lu métti dama moo xees Ronaldinho moo ñëwoon ginnaaw bëre naa mën ak yool du mën a yomb lu amoon day maa da lay suqawaat waaw waaw déet kat tànk yi jëm tànk njool kenn du ko jëlee noonu Ronaldinho ñam naa ko bàyyi naa ko amul fenn day suq rek noo def mu indi la waxoon naa la ko eh, Ronaldinho loolu la arrangé waaye may tuul dóor ñu faq la daal di lay la waaw di ñëw wàcc la mooy boole ndaaw na il faut nga wàcc ba toll ak moom moo tax wàcc na ba toll ak moom da koy suqiwaat da koy indiwaat da koy ubbiwaat. da koy ubbiwaat maa la wax lii boobu baaxul wutal beneen kele. porte boobu baaxul wutal beneen kele. da koy suqi. boo xool da koy ubbi dóor bu arrangé wu ko waaye Dakar Boy Dakar jàppante bi bëgg may nga bëgg songati nañ jàppante moom moo ko arrangé Boy Dakar na ngeem Ronaldinho jàppule combat yi ba dina jeexee fii da koy buy dóor waxoon naa la ko day génn sàkk tar xeex bee ngi mel ni mbàccum gerte arbitre bi sifflé waat na arbitre yi ñoom su cinq minutes jeex na cinq minutes jeex na arrangé ah, na ah gannaaw bañ bëree cinq minutes si diggante Boy Dakar ak kii di Ronaldinho arbitre ngi waay sifflé pour <laughs> deuxième partie wala période deuxième partie Ronaldinho bu Songane Gueye moo ñëwoon ginnaaw ngeen ngeen bul weex li ak Boy Dakar bu Doudou Baka Sarr moo xonk <laughs> moo xees xonk xees daan na ko da koy daan da koy daan da koy daan am fi nen ba nen ba abi bi dafa tàgg nen ba waxoon na ko sànq nen ba la fàtte woon joxalañ ko nen ba nen ba la fàtte woon nen ba la fàtte woon nen ba la fàtte woon delluwaat na sëñ ba jox ko nen ba mu daal di koy toj daan Ronaldinho oh booy Dakar daan na ko dakk de gàllaaj si làmb la bokk dakk de gàllaaj si làmb la bokk biteel ba ay waay maa ngi doog a xam ne gàllaaj na ci làmb la Yamanaga